ci wàllum koom-koom wàllum chambre de commerce rawatina Touba bi nga nekk nga xamante ne nii secteur informel bi moom moo fi gën a nekk comme comme bay bu mu wax comme comme commerce bu mu wax te loolu mënuñu ko wax te duñ tudd chambre de commerce yi. loolu loolu ci biir chambre de commerce la nekk waa chambre de commerce ñoom ñoo koy ñoom ñoo ci nekk di ci liggéey kon nag dañuy ñaan suñu président de la république muy mag Sall. mu dimbali ñi nga xamante ni nii ñoo nekk ci chambre de commerce yooyu noonu dooleel leen ba nga xamante ni nii jeunesse bi ñu bëri ñoo xamante ne nii amuñu xëy dinañ am ay xëy te loolu nag lu ko luy waral sax jeunes yi di génn di dem ci euh, gaal yi di xam nga di def ay euh, ay ay catastrophe yoo xamante nii mënoon na ñàkk peut-être ñàkku xëy bi am ci Sénégal mu metti loolu jeunes yi bëgg liggéey mu amuñu ay liggéey amuñu ay poste yoo xamante nii mën nañ fa nekk am na ñoo xamante ni dañu jug pour jàpp ci loolu naturellement comme ay bonne volonté yu mel ni euh, sunu comme ni ko Talla waxee Serigne Mboup mi nga xamante nii dafa jël initiative boppam pour jàppale ndaw yi kon nag ñooñu dañ leen a war a dooleel monsieur le président monsieur Macky Sall ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay ñaan ci lii nii ñuy def point de presse bi pour nga jàppale ñi nga xamante ni nii ay bonne volonté yenn ay bonne volonté yoo xamante ni dañu jug pour jàppale ndaw yi pour ñu xëy nga dooleel leen ñu teg leen seen place ñu xam ni ñii ay nit ñu dara jàppale lañ parce que Sénégal bëri na y a des multimilliardaires yoo xamante ni amuñu sax xel boobu juste dañu toog noos lekk seen xaalis mais am na ñoo xamante ne nag seen xel dafa dem ñu ñëw jàppale la parce que président de la république mënul lépp mënul satisfaire lépp mënul satisfaire toute la population il faut mu am ñoo xamante ni dañuy nekk ci ginnaawam di ko jàppale te boo amee ay nit ñu lay jàppale kon nag yow tamit da leen a war a gestu